Thank you. bàyyi tuddee ko xalil man mm. naa soo déggee nga xalil rek bàyyi na si lañ ci jublu mm. ne saaru xalilu mooy xalil mooy bàyyi na si génn na àdduna mm-hmm. ama darin ci atu daab daab nag soo ko taawee daab na ak alif ak daal mm-hmm. moom ku nekk xam na juróom-ñeent fukk la alif ak daal bi juróom la kon atum juróom ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent yàlla Muhammad mooy quatre-vingt-quinze ci la yonent ci Cheikh ci la Mawlana Cheikh Ibrahim génn àdduna سادي رجب مهم رجب أمين كلي فنجرو من أول عمرة دون من هم لايقين إن سوق لي من مجرو من أكثر جرو نجرو في سنة شخصية كم بيت بي دفع خير اللور بقول عمرة إيه بقول عمرة إيه لكم أنا في نعرفين صار الخليل أمضى من فلتعي إن سادي رجب بقول عمرة إيه ودار البيت لنا خمنا ولا وين وين بيت كم أم حكمة يلا بيت bés ba muy génn àdduna bàyyi ne doyul ci loolu bàyyi jël loolu di ko sax may ay taalibe mu nekk xaraaba mu jëlee ko ci moom di ko yóbbu ci ay taalibe ndax gis nañ taalibe bàyyi ne sax du mbay géegu ca biir Nigéria man xam naa mbay géegu moom jur ñoom Cheikh Abdoulaye mbay géegu mbay géegu moom ba mu ñëwee Medina Baye toujours su daan toog ak Baye danaa wax kuddi kuddi kuddi kuddi nag soo xam mooy mooy xaalis mm-hmm. loolu ci làkk xaw sa xaalis mm-hmm. maanaam nag nga bàyyi ñaanal xaalis benn bés bàyyi toogal moom ne ko may nii loo bëgg mu ne ñett laa bëgg benn yàlla naa ko fépp am alal bàyyi na ko baax mu ne ko beneen yàlla na sama deret jaxasoo sa deret bàyyi na ko baax mu ne beneen bi mooy naa génn àdduna bi rajo bàyyi na ko baax bàyyi yóbbu benn kaasu ba mu naan ba ci ngi bi jox ko mu naan yàlla def mu ñibbi Nigéria nee na moom affaire def ko bett benn bés moom ngi tëdd jëndee yaay xool nag boo koy jëndee maanaam nag yi nag yi nga xam ne moom lay armée bi di lekk maanaam dañ koy jox financement bi loolu ay milliards la léegi mooy jox ko jaaykatu nag yi muy jënd nag yi di leen indi ñoom ñuy dund nee na fa la jaar ubbeeku yàlla may ko ay milliards dafa am ay avion benn moom yàlla def mu takk doomu Papa Cheikh moom moo ba mu yeewoo rek fa la jóg sangu daal di jàpp mhm. li la muy julli woo kër gi ne leen tey laa génn àdduna kenn mosul gis lu mel noonu ma ne ko li ngay wax yow tamit ñu yaakaar ne caaxaan mu tëdd noonu ci kaw lalam bi rek sàngoo sëram bi balaa ñuy noddu eh, tisbaar boobu génn na àdduna may gi lii la génnee àdduna ndax nettali na gars yi ne leen li ma ñaanoon bàyyi bàyyi feeñu na ma nee na may na ma ko comme que nag benn moo desoon bisu àjjuma bi wóor na ma ne tey laay génn àdduna comme que waxee nit ñi rek ñu jàppee caaxaan nga gis nekkete ñoo ngi doon wax mbir mi nan la ko bàyyi mën a amee mm-hmm. judd ci fukki fan ak weeru rajab génn ci fukki fan ak euh, génn àdduna ci fukki fan ak weeru rajab ndekete moom ci boppam yàlla may na ko capacité def tasarruf ci mulki laa ci nguur gi yàlla gi ba nit su waxee bés bi laa bëgg génn àdduna sax mu may la loolu xam nga ndekete bàyyi ngiram yàlla rek am xam li ñuy ñaan mooy yàlla ñu may déglu dégg ci adresse yi Ibrahima gëm ci suñu xol ne yàlla sàkkul diggante asamaan ak suuf ginnaaw yonent yi ginnaaw sahaaba yi ginnaaw Mawlana Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane yàlla indiwul ci kaw suuf ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima xam-xam ci dëggu ci wilaaya ci bëgg yàlla ci roy sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu waaye mos a am ci àdduna rek dëgg moo la ko saaba yi am na ku ci dëgg ba ba mu dee malaaka yi ñoo doon sànq ba jàngee ak seen ba jàng malaaka saaba am na ku ci dëgg ba ba ba ba ba ba ma ba ba mu génnee àdduna lalu yàlla gi dafa yàlla mu masa sallam wax am na ku ci dëgg bay naaw ak malaaka yi mooy jaafaru tayaar su dee ko tayaar dara waral am maqaam boobu lu lam dégg woon ci yàlla ba mu yonent bi saa sallam ne jaafar ak naaw ak malaaka yi ànd ay laaf di janaaxay mu dara jeeg bi dem wa jaafaru lazi yumsi wa yumhi yatiru ma al malaayika ikul si nan li tamit naa bi di fa gaa yi baax ne yeggoon macha bi di continuer ba léegi la doon yàlla di jox ñi dégg ñi moo ngi te kenn mënul am nit lu la yóbbu ci yàlla bu raw Mawlana Cheikh Aziz radiyallahu anhu ndax ci ci ci mboolem ci domaine yëpp nag ci ci wilaaya bi ci maarifa billaahi bi maanaam ci topp sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu ci yar bi ci charia bi ci xaqiqa bi lépp loo xam ne sëriñ dana ko ci kaw bi rek soo ñëwee ci Ibrahim nekkoon ne gisoon nga ko ci am fukk da nga ñëw ci téeméer loolu ngeneen yàlla la bu ko yàlla may kon ñun suñu yàlla mayee ku mel ni kooka dañ ko jéem a roy nekkul ci wootu ay maqaama mbir mi nekkul ci nax ñi ñu lekk seen xaalis mbir mi nekkul ci wax lu ñëwagul pour nit ñi gëm la wala daa boos bàyyi nee na bachar fi kashfi mukawanaati wala dilaatin bi mugayabaati allahu aqrabu wa aala wa ajal bal tusbi fi awqaati fi ilahi jal bàyyi nes nee na bachar fi kashfi mukawanaati mbir mi nekkul ci ruñ ñi yooy ñëw mbir mi ñëwagul nga ne da ngay ñettali mbir mi pour su ñëwee déedéet mbir mi du foofu abu tamaam waxoon na ko waaw way def rek alfadl wa zadil mun ko xaar kulluhum mudallalun wa duna alxayb alfaal xam ne suñ diggante xaybu ay ay ay caabi ya fa yàlla def yàlla ñëw edd ba ma fàtte wa xaybi laa yàlla maa illaa la ñëwul moom kenn xamu ko dul yàlla ci loxo yàlla la nekk kon xëy na riwaayé am xëy na ñu jëm wa ma saabu min durufin fiha aw min kasiri taxarusan wa ahadisan mulafaqatan yàlla def mu def yàlla may ko victoire mu ubbi maanaam fataha muuriya boo xam ne min ahdi iskandari aw qabla zalika qad shaabat nawaasib layaali qadiran tasir dégg nga kenn xamul muy yow leen dul yàlla ndax mbir mi bàyyi nas nee na mashaahu fi kashfi mukawanaat wala dilaamin bil mughayyabat bàyyi ne allahu yàlla aqrabu moo la gën a jege sa bopp wa aala moo gën a kawe wa ajal yàlla gën a màgg yàlla gën a jege yàlla gën a kawe yàlla gën a màgg yow taalibe bi nga war a def bal tuslifin aw xaatifin ilaa rijal jëlal sa wax yëpp nga sopp ko ci yàlla nga roy ña jiitu woon ña àndoon ak Baye te Baye gërëm leen ñoo ñoo lay woon yoon waaye tey jamono dafa jaxasoo ba nga xam ne ixtalafal xaalu bi naa bi da ngay gis nit wóor ko ci yàlla jàpp ne xol bi yàlla rek a ci nekk fekk nekk dafa bëgg duniyaa bëgg àdduna bëgg daraja moo ngi fees dell ci xol bi muy jël bàyyi di ko jaxase ak leneen pour bëgg laa réeral jëriñoo la utiliser nañ fexe xam ne lii bàyyi ak lu bàyyi ndax kat fi daal moo tax ñu taalibe bu baax ràññee la mooy bàyyi ak lu bàyyi lépp loo xam ne bàyyi dégg na ci suñu nekk lépp loo xam ne ci bàyyi la loolu lañ soxla loolu lañ bëgg ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may tawfiq yokk yokk ñu bëggeelu seen yokk ñu farlu bennee xol yi barke alxuraan barke takkusaan bu baax bi barke weer bu baax bi di ñaan yàlla niñ ko fekkee fii nañ ko fekkee noonu incha allah déwén ànd ak tawfiq ci barke yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndamoon nañ leen nag dëkk bi feebar bu bon yi nga xam ne moo ñu tënkoon depuis at yëpp pilih main hiyo kufi sabaja amesa panasema koti yangi dom jo inge tambulen watekete biye biye na gisi bil bil boti yego wa tashtabu nafsi wa hum bayna azmi ibn sama bakkan ngi do nam tekete yere gisi bil bakkan yi ngeen dañu gisé waye musulé na genn ci suñu xol ndax dëkk bi ñun dañ ko bëgg ndax baye ñass rek mo nek ci dëkk bi yalla rek mo nek ci dëkk ma sha Allah loolu la Moussa Ibrahim Thiam bi ba ma demee seen dëkk ma fekk dëkk yépp ay taalibaay lañ man leen yéen dëkk bi moom dana neex a dëkk te dëkk bi dëkk bu ma neex la dëkk boo xam ne ku am la bu cher ay nit la yoo xam ne dañoo bëgg bàyyi amuñu dul bàyyi gisuñu dul bàyyi te mm-hmm. jeex ci bàyyi di dund yàlla ay nit ñëpp suñu bokkee nekk taalibe bàyyi yàlla maa ngi nuyu bàyyi bu Thierno Ka di nuyu soppe yëpp di nuyu André yëpp xanaa ko woon dana maanaam